Euh, euh, ministre microfinance génn tontu Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen Thierno Bocoum démb dafa bind benn bataaxal publier ko ci site internet yi euh, jox ko média yi di dànkaafu Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko moom dafay bañ ku ko tudd xanaa loolu tey la ko dikkal ndaxte moom ñoom ñoo doon ànd Euh, di def lu nekk tey jii bu fekkee ni euh, dafay wax euh, ñu bañ ñu ko tudd loolu tegu ko fenn ñu rappelé ni Ousmane Sonko bu mu génnee vendredi ba passé dafa wax ne moom daanaka moom rek la ñuy waxtaanee nit ñi au lieu que ñu wax ci Macky Sall nu muy doxalee réew mi du yoon moom la ñuy topp di ko ŋaañi di ko wax guddeeg bëccëg te dafa bëgg kenn bañ ko tuddati Thierno Bocoum ci. bataaxal bi ba léegi euh, mu ne ñëpp xam nañ ni Macky Sall moom euh, lu muy def euh, du yoon jàpp yi tamit du yoon wante troisième candidature bi mu bëgg tamit du yoon wante Ousmane Sonko moom dafa war a changer lu nga xamante ni moo di comportement am. Aïcha le collectif des étudiants de PASTEF ñoom nag ñu ngi alerte état du Sénégal. waaw euh, kuréel gi nga xamante ni moom moo tënk euh, étudiants yi bokk ci biir parti PASTEF ñoom euh, ñu ngi expliquer lu ñuy expliquer nag nee na ñoom nu ñu sonalee ki nga xamante ni mooy seen njiit di Ousmane Sonko dafa métti. ñu ngi koy toŋal saa yu nekk euh, suy dem tribunal ci buntu këram ñu koy tëj te loolu fokk rek mu dakk ci benn communiqué boo xamante ni ñoom ñii di étudiant bokk ci euh, euh, Pastef mhm. nee na ñoom Ousmane Sonko dañ koy xarab dañ koy diaboliser te loolu lu ci état bi bëgg rek moom mooy bañ mu dem ci élection présidentielle yu 2024 Ousmane Sonko toujours waaw Ousmane Sonko euh, moom euh, mu ngi Ziguinchor euh, am en tout cas pour l'instant gisaguñu xibaar bu ma bu ñuy wan ne jóge na ñëw fii Ndakaaru loolu tax na ba am ñoo xamante ci ñoom la ñu bokk barricade buntu këram maanaam ay ndaw yu mu àndal nii kenn du dugg kenn du génn benn takk der du ñu bëgg euh, mu jaar foofu ngir di koy jël ngir yóbbu ko ci ndakaaru ñu remarqué lenn Ziguinchor euh, activités yi maanaam yu soxal wàll koom-koom ak yeneen ak yeneen euh, mu ngi doon dox nànk-nànk am na ñoo xamante ni ñu fa dëkk yëkkati nañ ay kàddu nee nañ moom dóor yi ak dàq yi dañoo bëgg mu dakk Euh, ndaxte ñoom dañoo ragal dañoo bëgg dund euh, si jàmm ñu rappeler rek encore une fois ne yoon bi nga xamante ni moo jëm kër Ousmane Sonko ci nema nekk si ci Ziguinchor mhm. dañ ko barricadé euh, ay militants ñoo taxaw foofu bañ kenn ku jàll ngir wattu ki nga xamante ne moom mooy seen leader di Ousmane Sonko. Agence de la promotion de l'emploi moom nag mu ngi inciter les jeunes à l'emploi ñu tëjee ko ci économie euh, yaa ngi koy wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy def lépp ngir yombalal euh, sénégalais yi ñu am xëy euh, nee na ñoom lu tax ñu def ko moom mooy téeméer boo jël ñaar fukk ak ñett sénégalais ay ndaw yoo xamante ni amuñu liggéey te ñoom lu ñu bëgg rek moom mooy jël deux cent mille jeunes. Euh, maanaam ay ndaw yoo xamante ni lu ñu leen bëgg mooy tàggat leen ba mën leen a dugal ci euh, marché emploi bi. Mhm. Euh, te loolu dina amal solo ñii di Sénégal ñoom nag dañuy teg lu ñuy woowee ay oto yoo xamante ni mobile dugg ci ñaax ñi nga xamante ni jeunes yi ñu ñëw bindu ñu expliquer leen nan lañ mën a def ba mën a am liggéey dugg ci monde professionnel loolu nag ñoom tey jii lañ koy amal ci Grand Théâtre jaajëfal nañ la bu baax a baax ci xibaar yi am na solo dinañ ko gën a yaatal ak sunu ganu tey mm-hmm. ah, bu ko defee rek ñu ànd ak la régie bu baax bi noppee mbokk yi ñu dikkaat ci plateau bi